Mansour Mamadou Gueye sa moroom la ànd leen àndu nawle yéen ak Mamadou Lamine ngeen taxaw man ngeen a defar yoof mën ngeen a defar yoof man def naa juróom-ñaari at ci gouvernement xam naa li am ci commune yi xam naa li am li gouvernement mën xam naa li commune mën fu nañ bàyyi naxante yi munoo toog yor responsabilité yépp nekk ci gouvernement yor mairie bi 2 milliards 400. budget 2 milliards 400. ci tey kenn mënu wax yoof lu fi am. déedéet déedéet. xëccoo bi Mamadou. xëccoo bi. du saagante. du wax wax ju ñaaw. du wax wax ju tiit. du wax wax ju tegganiwul. xëccoo bi ci li ngay defal waa yoof la. bi ci li ngay defal waa Nord Foire la. xëccoo bi ci li ngay defal waa West Foire la. xëccoo bi ci li ngay defal waa ñi nga dëkkal la. fan yi nag dégg naa seen téléphone lañ jël di tiitalaate naan waaw président nee na kii nee na kenn waxul dara am na sax ñu ñuy menacé naan leen waaw après tu vas voir après après ñoom ñoo fiy jógee yéen ngeen toog fi loolu moo après moom buñ ca eggee ñuy menacé waate naan waaw après di nga xam ñom ñoo fi joggé yeen ngeen tok fi parce que yalla suñu borom deug la bëgg yalla suñu borom deug la bëgg parce que bëggul ay naxaté mëno nekk ci gox say mbokk tan la nga soxla ñew taxaw di leen ñaan yalla jox la teraanga ji nga tëj sa téléphone yéggal say vertente heure bo fi rombé guddi la fi ñu tollu ni ñepp nga daw dinañ jëma jënd ni buñ jënd jëlal lek te mu la ni que bu amé lim bëgg après nonu lay défat dëgg la yow défaro yoof nan ñu jox la dakar fi yoof changement bi fi am. président Macky Sall mo def projet bu ñaxanté dé du maire bi. li fi am ni président Macky Sall moko def ci programme routier tabax fi autopont entreprise bi def fi RSE. du maire bi maire bi ñaari affaire yu juwaaloo yoy la fi defoon ca bañ koy def xam nañ ni projet bi dina am. mais dañ koo def pour après toj ko loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg kañ ko tudde nag ku liggéeyal yoof la ku amal njariñ ay mbokkam la ku amal njariñ waa yoof la woon waaye jëf jiñ ko def rafetul nañu booloo liggéey kenn duñu xoqatal musuñoo dellu gannaaw waaye nag wax ji nañ ko tek ci liñ yéene rek nañ ko tek ci man lii laa bëgg man ku bëgg a ñëw toog werante ak man lu tax ma bëgg a jël ndakaaru dinaa ni la dama defar 7 point 26 point mu doon programme ñu bind ci livre mhm. dégg naa ñi ngi jéem a njëkkante pour bind programme mais programme kenn du ko bind ci ñaari weer ci ku copier li ñu def ay logiciel anticopie ñu ngi fi ñu wane ni que kii li muy wax amul xëccoo bi ci xalaat la mhm. xëccoo bi ci wax ak askan bi la mhm. xëccoo bi ci wax ak ndaw ñi la xëccoo bi ci wax ak jigéen ñi la xëccoo bi ci wax ak kilifa yi la te yow buñ ko tënkee ci loolu yàlla suñu boroom mënal na la ko ndax li ngi ñi nga àndal noo yor mairie président wóolu la jox la ndomba tànk yëpp jox la cër yëpp ba pare nga tëj sa téléphone tey nga bëgg a wër ñëpp du kilifa diine du kilifa aada du say mbokk même tey nga bëgg a forcer ñëpp bëgg xoqatal ñëpp bëgg tiital ñëpp ni ku àndul ak yow àndul ak président du dëgg. man kenn gënumaa ànd ak président. xeex bu mu sumb maa ci jiitu. waaw musumaa daw. musumaa dellu gannaaw. tey laa ci gën a taxaw. ci suba laa koy gën a féetali. yëf yi nañu bàyyi naxaate bi nañ xëccoo ci dëgg xëccoo ci jàmm. xëccoo ci dal hmm. yalla moy joxe buñu yalla joxe ñu xamni ñun la yalla jox ku nekk delu ci la nga nekkon mais alam nekk nga ni yow tay fitna nga fi indi da hmm. ngay jël sa téléphone nan no bu yow mëno dem ci liste bi parce que ki sama adversaire le président né président waxul dara <laughs> man mi mëna dem tok sama bureau palais jël 880 bi du wo ku ma neex fii réew mi nit ñi yàgg nañ toog waaye kii laa añal président laa waxul kum ci soxla dina la woo ñoom ñëpp xam na seen numéro téléphone ñoom ñoo dawoon nit ñi toog ba soxla nit ñi defe ni mën nañ leen xoqatal ñu ñëw nit ñi duñu ñëw <laughs> lu ñu leen jox jël bu voté jotee ngeen voté Sénégal 2035 pour Yoff ak pour Dakar mosuñoo nax kenn mosuñoo dig kenn luñ deful suñu jikko sax digaté bokku ci parce que digaté yakam ci ngeureum lo momagul la motax ñu indi programme ni fi lañuy joggé fi lañuy jaar li lañ koy defee niñ koy défé ay xalé yu seen xel sel la c'est pas parce que ando won ak président que mëno defal sa gox c'est pas parce que neko benno sigi Sénégal que mëno défal sa gox ay sénégalais lañ amna ñu décidé nek société civile amna ñu décidé nek benen parti amna ñu décidé nek fenen mais bu défar sa gox joté doomu gox ba ñooy dajaloo te kenn mënul forcer kenn mu topp la ku leen wax ni ko diw nee na way ñi ngi woote fii ñoom ñooy woote waaye yàlla pare na yàlla pare na yàlla pare yàlla du jël ay sos dañu waxoon Mamadou Gueye bul topp Mambay yi lay perdre sa temps doo nekk candidat yaa njëkk a déposé mm-hmm. fii ci Ndakaaru la ko doon wax yaa leen njëkk a déposé ah, dañu waxoon dañuy dem ba ci yàgg ñu wañ seen loxo dañu dem nañ joxante rendez-vous bisu élection yi incha allah balaa ngoon ñu pare ci parce que jiwuñu nit ñi ñoom luñ leen di toppaate dañ leen doon tiital di leen xoqatal di leen dig te defuñu ko di leen ger ak di leen jaay maay kilifa diw ak maay kilifa dew adduna romb na foofu ñi hmm. ñi boo leen jiitee da nga leen di déglu munoo tëj sa téléphone ku la bëgg a jot mënu laa jot bu nit ñi amé ay jafé jafé nga naan ma ngi fi ba pare tay nga bëgg andi nit ñi par force ak tek ko ci ay tiitalaate ak ay xoqalaate ragal nak du jëm guy <laughs> fiñ jëm fiñ jëm maire Dakar ku ku deggul du fa egg ak ñun ku ñemewul du fa egg ak ñun ku gorewul du fa egg ak ñun <laughs> waye yalla neena ñi gore ñoy mësa ëpp <laughs> amul ti amul ragal taxawal and nga ñoom Mamadou Lamine mm-hmm. ëppale wuñ la ëppale wuñ leen ñoom mm-hmm. boo amee mag bu mel ni du jànjee ko nekk sa ginnaaw ëppale wuñ la ci lébu gi boo amee kër maam waa kër maam Limaamu Laay sa ginnaaw ëppalewuñ la ci bu fekkee ni que dañ leen di jariñ lu ëpp lim leen di jariñ doomu gox bi kiy defar gox bi moo ko gën mm-hmm. nañ leen bàyyi naxante bi te loolu day tas réew mi réew mi kenn mosu fee wax ay waxi xeet ay man maay def lii ay man maay def lële réew mii ñoom Baay Laay ñoom Serigne Touba suñu maam Babacar ku ci nekk yoroon nga sa tarixa waaye fexe bañ seet kante kóllëre doomu diw damaa dem kër Baay Laay këru diine yëpp am nañ fa turandoo Cheikh Mbacke am na fa turandoo Mansour Thiaw am na fa turandoo donc ñun loolu la ñu xam doo toog ba yow sa bëgg-bëggu kese nga bëgg a des ci privilège yoo xam ne mérité woo ko après nga bëgg indi naan man maay lii man maay lële nekkal doomu ku la neex. nekkal fu la neex. maay doomu dëkk bi du waxi dëkk bi. ñëppay doomi dëkk bi ci dëkk bi lañ dëkk. bàyyi laa yéen woon fàq leen ñi ñaa ngi ñëw. ñëw nañ am nañ fi cër dañuy waxtaan xool nañ la ñuy defaree gox bi asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf.